moom oustaz Modou Fall mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nañ ko lool fa nga xam ni moo di ca TFM jamono ji nag coow lu rëy daan na koy uh, topp ginnaaw ba nga xamee rek kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daan nañ koy fal mu nekk li nga xam ni moo di président ci réew mi di Sénégal tax Sénégal yu bari di wax rek uh, toog muy dox daan nay jeex ci réew mi di uh, Sénégal waaye nag ki nga xam ne moo di oustaz Modou Fall ginnaaw émission ba nga xam ne rek doon na ko def wax xam ne sax moom waxul sax toog muy dox waaye day tëdd muy dox ndax kat moom mu ngi sant yàlla bu baax a baax mi ngi liggéey ñu koy fay waxul sax toog muy dox waaye day tëdd muy dox ginnaaw kàddu yooyu nag ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yu bare bari eh, di ko naxarloo ko eh, ñaawlu di wax ne kii di oustaz Modou Fall dafa ñàkk fayda moom nag nekkul koo xam ne ku am fullaak fayda la ci boppam waaye nag ki nga xam ne moo di oustaz Modou Fall nag la mu xam ne ca boobu la émission moo di rek ñi nga xam ne ñooy wax naan toog muy dox jeex na ci réew mi ñooñu dañoo soxor képp moo tax ñuy wax loole ndax mënul imaginer koo xam ne nag yorul dara fekk koo xam ne yor na alal bu dul jeex yor ay compte banque am koy wax naan toog muy dox jeex na fi loolu ak soxor la te képp koo xam ne sax da ngay toog muy dox xamal ne loolu liggéey liggéeyub ndey la nekkul lenn waaye nag ñi nga xam ne rek ñooy wax naan toog muy dox jeex na ci réew mi ñooñu dañoo soxoor képp moo tax ñuy wax loole loolu nag di ay kaddu yoo xam ne kii di moo Modou Fall daan na ko yëkkati ci émission bi nga xam ne rek doon na ko def nga xam ne moo di ca TFM ñu teewlu yooyu le kàddu dellusiwaat. wax naa ko benn mbokk barki démb ma ne ko man damay tëdd muy dox tëdd tëdd jaaxaan di wëlbatiku di wéqu muy dox. di gént di karaate ci biir nelaw yi muy dox lépp di dox ma am salaire Youssou Ndour di ma fay salaire bu weex tàll te sama salaire dinaa toog cinq mois duma ko xool parce maa ngi am xaalis waaw loolu mooy wangeetu ak jaaxaan muy dox voilà mbokk yi ñoo déggandoo kàddu yi nga xam ne kii di oustaz Modou Fall daan na ko yëkkati fa nga xam ne moo di ca uh, TFM moom nag jamono ji Sénégal yu bëri ña ngi koy daal di uh, coow ginnaaw kàddu yooye ndax kat ku nekk rek yaa ngay def sa vidéo di ko uh, tontu ñi nga xam ne rek ñoom la ñu gën a ràññee ci li nga xam ne moo di internet bi ku nekk rek yaa ngay def say vidéo di tontu ki nga xam ne moo di oustaz Modou Fall mu nekk nag coow lu rëy loo xam ne jamono ji kii di oustaz Modou Fall daan koy gàddu ginnaaw kàddu yoo xam ne daf ko yëkkati jëm li nga xam ne rek moo di toog muy dox. asalaamaaleykum seen mbokk Oustaz Thierno Modou Fall lu dama ne woon du ma wax ci yow ndax doo lëf lu am solo waaye da ngaa dugg ci suñu terrain te terrain moom ku ci dugg dinañu la paas bal mbaa ñu dóor la bal yow nag dañ lay dóor bal bi Modou bàyyi sa waay am bu métti yi nga nekk ak sa gaaruwaale bi xoolal ñi ñu wax ni ay ustaas lañ nga def leen nawle bàyyi sa wëndeelu geeg sa ñaan bu métti bii nit ñi jëpp ne doo nit ñi jéppi nañ la te waxuñu la ko yappar yappar ji ba ko te gëm sa bopp ma wax nga naan waxuma toog muy dox waaye tëdd muy dox boo tëddee muy dox rek ay loxo ñoo doxantu ñëw ci yow sonal nga wéef de nga wéef laa wax orange moo ne sonal nga leen sa bopp te bàyyi sa gaaruwaale bii alxuraan yàlla ji lu la neex nga koy firee ngir bëgg lenn lu neex aw nit ba ko bàyyi loolu gaaruwaale bii dong nga tax jigéen ñi def la ay fans di la estati ndax li ngay def di gaaruwaale seen yëf la bàyyi loolu da nga gëm sa bopp